mais euh, yenn ci seen euh, recours bi ngeen euh, bi ngeen déposé da ngeen ne da ngeen accusé ñi nga xam ne ñoom ñooy Cheikh Tidiane ak Bassirou Diomaye appartenance à une entité politique dissoute coalition irrégulièrement constituée euh, production de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel non-appartenance au parti ou à la co coalition qui l'a investi alors quand vous parlez de production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel euh, à quoi vous référence waaw xam nga euh, loolu aussi euh, tribunal tontu nañu dëggulul li wax dañu ne euh, candidat bi ñuy woowee Bassirou Diomaye fay jamono bi ñuy wax mu ngi kaso kaso soo fa nekkee lu nu la neex ngay génne këyit sooy génne ay këyit këyit yooyule le koy bind jox ko directeur u kaso bi su dee kayit bi pour administration yi la danga koy def ci bolon bind ci ki nga koy yónnee jox ko directeur u kaso bi directeur kaso bi moo koy jébbal loolu la yoon wax ñu jàpp ne leneen yàgg ngeen dégg yàgg dañ ko gis fii nit génne kayit bu jógee kaso ñu topp ko ne ni mu ko génnee teguwul ci yoon ci fraude la ndax lu teguwul ci yoon rek fraude la ñu ne ndagam kayit yooyu génn te ba muy génn jaarul ca yoon fraude la. mais yan kayit. kayit yi mu signé yëpp. yi mu signé yëpp. na donc na mu génnee ces correspondances là c'est de manière illégale. waaw ñun loolu la wax ñun loolu la ñu jàpp. Ah. parce que ba muy génn normalement dafa war a jaar ci loxo administration pénitentiaire parce que kaso kaso la soo fa nekkee libéraux def lu la neex libéraux bind ko la neex lenn rek la yoon may nga di ko bind te yoon du ko xool muy. correspondance bind bi nga yónnee sa avocat loolu ci dans le cadre de la defence la doo jël sa avocat bëgg bind sa waa kër bind ko pour mu jottali ko sa waa kër su ko defee avocat bi yoon day dal ci kawam li nga koy bind la pour sa defence waaye dañu jàpp ne ndegam da nga bëgg nekk candidat signé defar ay dossier dossiers yooyu la dafa am fu mu war a jaar su fa jaarul fraude la yoon toppuñu yoon nee na noonu d'accordul ci loolu du te ëllëgee su amee waat dinañu delluwaat ci yoon parce que yoon aussi mën na changer waaye tey tey tembe yoon la mu wax mooy ñun fañ ko teg ñoom ànduñu ci àddul. donc ba muy constituer sa son dossier de candidature euh, lam ko constituer yëpp lam ci signé yëpp. amul dara da ngeen jàpp ne lu jaar ci circuit légal. waaw ñun loolu la ñu jàpp donc quand vous parlez de production de fausses euh, informations. waaw, mais mu ñàkk jaar ci circuit normal bi ngeen bi administratif bi est-ce que loolu entaché na pour autant la régularité et la légalité des documents. waaw ñun loolu lañ ko gisee xam nga dañ naan toujours li yoon di wax la fraude corrompt tout lépp loo xam da nga ko jot da ko def ci fraude fu mu laal rek day yàqu yoon wax foofu lañ ko teg parce que su dee la fraude corrompt tout lépp loo xam dañ ko def par fraude. du baax parce que jaarul fa mu waroon jaar kon fraude la ñun foofu lañ ko teg. boo génnee mën nga génne document de manière irrégulière mais cela euh, n'impacte en rien l'authenticité et la légalité du mais document yoon dafa sew nag loolu la yoon wax lépp loo xam ne bi ci fraude nga ko jotee ci njuut njaaj baaxul donte ne loolu ngay génnee kayit gu dëggu la dafa am fu mu war a jaar kon lu tax ñuy defar forme ak procédure dañuy defar forme defar procédure pour ñu ñu gàll nit ñi ci loolu dañ la ci dañ la ciy tënk ne fii nga war a jaar ni nga ko war a def su fa jaarul jaarul ci yoon loolu amul sax werante waaye attekat bi mooy atte e ñoom du ñu def erreur duñ ko def dañuy jàpp ne ñëpp mën nañu jàpp tey ñu jàng droit yoon yëpp ne lii mooy li jub ñoom ci seen bopp ñu ñëw ne loolu d'accord uñu ci lii la ñu d'accord donc ñoom loolee ñu d'accord loolu mooy yoon ndax ñoom ñoo leen teg fii loolu leen constitution sant am nañu sañ-sañ li tubaab di wax créateur de droit le conseil constitutionnel comme la cour suprême sont des créateurs de droit donc ñoom euh, euh, assemblée nationale mooy defar loi mais loi bi lu mu mënti doon tribunal moo koy interpréter donc moo koy moo koy créer donc. xam tax may ma leen la naan est-ce que c'était pas un coup politique. waaw euh, parce que bi ñu dissoudre Pastef. Mhm. Euh, taxul ñu nangu collectivité locale yi ñu contrôler parce que coalition moo leen samp. Mhm. taxul ñu désaisir seen député yi de leur mandat euh, à l'Assemblée nationale loolu aussi euh, yéen en tant que. Euh, majorité buy gouverner Sénégal euh, vous êtes à la vous avez toutes les informations euh, à votre portée et je m'étonne que ngeen def ci seen recours bi appartenance à une entité politique dissoute waroon waroon xam ngeen ne du Pastef bañeeru Pastef la Bassirou Diomaye ak Cheikh Tidiane Dièye demee coalition irrégulièrement constituée non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi vous devriez vous douter que euh, ñoom tey bu ñu demee bay dem du ñu demee bañeeru Pastef beneen parti euh, wala beneen coalition euh, moom la ñuy moom la ñuy demee et à l'époque la débat s'est s'est posé demander on est-ce que ñoom ñi bokk ci parti du dissous est-ce que mën nañu compétir les les la loi a été très claire. la loi n'est pas claire comme ni ñu ko bëggee xam nga dañ naan parti soo ko dissoudre parti bi nga dissoudre dirigeant yi lan la ñuy def. est-ce que dañuy génn tout de suite créer beneen parti yoon da koy tere yoon da koy bañ parce que suñu la dissoudre nga génn defar parti li yoon di wax reconstitution d'une ligue dissoute loolu la kon suñu jëlee parti ñu dissoudre que am na ay conséquences parce que loi bi dafa wax ne suñu dis muy article 821 et suivant du code des obligations civiles et commerciales parce que auquel disposition auquel renvoie la loi sur les partis dañu ne suñu décider parti les dirigeants de ce parti ne peuvent exercer que l'action devant le tribunal ça veut dire que dañ leen tënk mënuñu def lu leen neex suñu demee ci bokk ba beneen parti te ñu tere leen ñu dekk ci ñu tas seen parti dafay mel ni loolee ñu nekkoon seen parti dañuy ñëw di ko defaat ci parti bi donc ça constitue la reconstitution d'une ligue de soutien c'est ça notre compréhension loolu bokkul ak ñi nga xam dañ leen fal ba pare dañ leen fal ci euh, coalition et yoon dafa wax naka la ñuy jëlee euh, ñi ñu fal naka la ñuy perte seen ndombal tànk c'est pas parce que dissoudre nañu parti bi que ki ñu fal ki ba pare dangay ngay perte sa ndombal tànk kenn ku ci nekk loo ci gis rek yoon daf la tënk yoon dafa ne suñu dissoudre sa parti les dirigeants lii la ñu mën a def à contrario on estime que ñu def leneen à contrario dem nañu sax mais loolu amul amul amul solo parce que daf ñuy compliquer suñu suñu waxtaan waaye lu ñu mën a jàpp soo ko seetloo même un candidat indépendant dañu wax ne un candidat indépendant c'est quelqu'un qui a cessé toute activité militante pendant un an au moins nañu jël Cheikh Tidiane Dièye moo ko waxal bopp Yewwi Askan Wi la bokk Yewwi Askan Wi coalition parti la d'accord lan la fay def dafay militer est-ce que mën na nekk candidat indépendant à partir du moment où moom ci boppam nangu na ne Yewwi Askan Wi la bokk. mais moom mouvement la yor. ba tey ba dafa bokk ci Yewwi Askan Wi. waaw mais mouvement la déedéet euh, ah, mais mouvement bi xam nga mouvement euh, texte bi dafa wax ne. et candidat indépendant celui qui est investi dañ koy wax ci tubaab par une entité composée de personnalités indépendantes entité boobu pour ñun entité bu ñuy créer la juste pour élection tey tey Maïmouna Ndour Faye bëgg nekk candidat élection présidentielle mu créer mouvement pour loolu avec Maïmouna Ndour pour 2024 ku bëgg ñëw nga bokk waaye su dee mouvement boobu mouvement bu amoon la avant ba pare mouvement boobu dem adhérer ci une coalition bu ñu woowee Yewwi Askan Wi est-ce que kooku arrêté na de faire des activités militantes à l'intérieur de Benno Bokk euh, de à l'intérieur de Yewwi Askan Wi ñun dañu jàpp ne loolu jaaduwul la cour le conseil a statué autrement on accepte ce que le conseil a dit même si argumentation man d'accorduma ci man en tant que juriste à titre personnel ça n'a rien à voir avec Amadou Ba Amadou Ba est d'accord il l'a dit il est d'accord man El Hadj Amadou en tant que qu'avocat en tant que juriste am naa sañ-sañ ne lii am naa ay réserve mën naa ko critiquer mais loolu yëkkatiwuma fi kooku discussion la bu ñuy am entre juriste yu xool ndegam li ñu jël and nga ci walla àndoo ci waaye soo ci àndee mooy li am soo ci àndul mooy li am donc da kay nangu ba pare man nangu naa ko donte ne ànduma ci mais loolu ay technique u droit la euh, di nga gis euh, tribunal jël décision di décider ba pare juristes yi mu di les avocats les quelques magistrats qui signent par leurs initiales quelques euh, enseignants ay professeurs université bind ku nekk bind ne d'accord ma ci donte ne nag da nga koy nangu parce que loolu mooy république loolu mooy respecter les institutions yoon lu mu décider loolu mooy dëgg li conseil constitutionnel décider loolu mooy dëgg donte ne nag man am naa sama dëgg bopp bokkul ak bopp. mais euh, Cheikh Tidiane Dièye concernant Cheikh Tidiane Dièye conseil constitutionnel daf leen débouté. waaw vous n'avez pas pu produire les documents prouvant aussi euh, ses connexions avec l'ex-parti PASTEF mais concernant bassero on l'a dit et redit et beaucoup de juristes l'ont l'ont ont, ont eu à le dire alors le fait que mu nekk en prison euh, entravewul dara euh, li nga xam ne moom mooy euh, ses capacités à prendre part à cette élection-là. Absolument. Et ça, le Conseil constitutionnel le dit dans à son considérant euh, 79. Est-ce que vérifier ngeen balaa ngeen di porter seen recours bi euh, ndax ñoom euh, contourné wuñu porox ndollu loi bi en se faisant investir par d'autres partis euh, euh légalement légalement constitués. waaw loolu aussi xam nga yoon da ngay dem. da ngay am sa sa conception ni nga ko gisee mu nga ni man nii laa ko gisee dafa am loo xam ne bi am nañu habitude di ko def dangay ngay bokk parti nga mer génn àbb récépissé dem élection da ngay àbb récépissé du tudd kenn xam nga ko xam naa ko yàgg nañ ko def Sénégal mais masuñu dem tribunal ne est-ce que loolu pour la première fois ñu dem conseil ne loolu jaaduwul parce que un parti dafay investir ñi nga xam ne bi mooy ay adhérents comment un parti war a mën a investir koo xam bokkul ci parteem kon loolu day yomb trop damay nekk ci parti bëgg dara euh, bëgg ñu investir ma mais wóoruma ndegam dinañu ma investir parce que puuxante bi bari na ma gis sama benn xarit ne ko defaral ma parti mu defar parti boo xam ne bi man bokkuma ci pour ëllëg su ma amee problème fii jàdd ñu fal ma foofu pour moo nekk candidat loolu aussi quelque part ab fraude la moo tax ñu ne dañuy ñaan conseil mu tontu ci loolu loolu est-ce loolu jaadu na pour man jaaduwul parce que am na lu gênant ci loolu parce que soo soo nekkee ci parti àndoo ak parti bi da ngay da nga ciy toog xeex ci biir walla nga dem sa yoon. soo demee sawar am nga sañ-sañ defar parti donte ne mën nañ am nañu am cinquante mille parti kooku suñ fa accès dañuy xool naka lañu koy gérer mais si tu n'es pas d'accord da ngay génn defar sa parti mais mënoo toog ci biir teg tànk ci biir wut sa xarit mu tegal la ci biti pour au cas loolu lañ doon wax conseil conseil topp ñu ci donc loolu du coup politique il arrive un moment dans la vie politique et dans la vie des associations qu'on pose aux juridictions des questions ki sont des questions extrêmement importantes et on leur demande d'apporter une réponse pour clarifier le jeu politique parce que aussi le jeu politique dafa laaj day laaj à un moment donné ñu clarifier pour ñu xam qui est qui et qui fait quoi le conseil ne nous a pas suivi on prend acte qu'il ne nous a pas suivi mais le combat n'est pas terminé parce que loolu aussi de ëllëg a tout ce qui s'est passé avec cette élection la multiplication des candidats la multiplication des partis à certains partis à certaines associations c'est tel il arrivera un moment quand on fera la revue du code et de la constitution que ces problèmes-là on les mette sur la sur la table ñu discuter ko parce que aussi il faut que ñu discuter ko mënuñu continuer ni ñu koy continuer nga xam ne ne bi euh, tulleeg màlle affaire mel ni euh, sabar bu tas euh, vingt candidats on avait deux cent quatre-vingts candidats il est évident que Sénégal mënuñu accepter ku ñu dem ay élections mu am deux cents candidats à une élection présidentielle c'est absolument impossible et pourtant loolu moo amoon donc il faut qu'on trouve de réguler on y arrivera incha allah